asalaamaaleykum wa rahmatullah Baye Njalax la fii si Rapadio ma bëggoon a jégalu mbooloo mi ndax xëji ba kër a fi waroon na ne tey waaye mu am musiba wu yëkkatiku ci dëkk bi tam jàmp lool ba nga xam ne mënuma cee ñàkk a wax démb ci ngoon laa xeewu si nelaw dégg xale yi di coow ci mbedd mi ma génn laaj leen lu war a réer gi ñu ne ma dañuy organiser baalub charbet ma ne ko charbet lan mu ne ma ab pati la boo xam ne juróomi téeméer la ñuy laaj waaye ku ci ñëw doo sol tubay da ngay xebbee ko ba mel ni nu la sa ndey lu ko dara sa jumbax ba say nga daal di ci teg aw charbet rek ba noonu sa xerendeel léegi ngelaw li di dugg nga fiix bay bëgg a dee ma jàpp sama gémmiñ gi tudd yàlla ne leen doom xanaa yéen di kenn jurul leen mu am waxambaane gu ma ne wante daat xam nga comme affaire si taw koo garaaw noonu ko dangaa capane ñoo sol mbuba en wasu xam nga comme dañ see teg daala su la nee nga alfa kawaasa yooyu noonu so waa gis ne all that dafa over wàññi temptation si xam nga ma ne ko testation ab lan mu ne ma waxuma testation papa temputation la wax ma ne ko man li ngay wax duma ko man a xam ndax diine laa jàng dégg naa nasaraan sax waaye baatu nongo yi ngeen ñi jël di ko seen laxas man la man mënta xam lan la bu fekkee ne sax dem ngeen ba seytaane doon seen kilifa ragalu leen yàlla ngeen ragal jaww ji ndax yàlla tere ku ci ngelaw li jeeko xenu sa sarbet yóbbu nga ràcc deseg li la yàlla sédd musiba topp la ba ilaa yawmi ma jàpp si ne di delloo seen si yàlla kenn si xale jigéen ñi ñoo ne ma waaye papa fa ñuy sol doroos du doon loo xam ne la ma ne moom du roos lu mu joteeg mooy yàlla bu ngeen demee ba iblis jiital leen ngeen ne fi di organiser patim charbet ku ebo bañ a xootu demal ak kàppi neen boo xàggee ngàmpaar misik mi tàmbali ngeen ne fa di tëlante ay awra bu ko defee suñ borom wàccee mbugal taxañ leen yóbbu sawara ma jógee fa waaxu ne xaaral ma dem kër sëñ Cheikh xàggee ko ko ndax moom gune yi fañ koy faral di déglu ma xàgg dugg ci saal bi fekk ko muy fecc misik ak njabootam gi mun ne ci di wiccaxu naan ma ne ko sëñ Cheikh mbaa jàmm mu ni ma bàyyi damay leebul op fan yi moom la gune yi ma ne ko Cheikh du ma la mën a wax yéen sa kanamu njaboot gi di la teg gàcce waaye li ngay def ni du diine te tawar fa kàlla fu mu nga boo fi nexee di gàjjamu ba sa feebaru dënn bi attaqué la nga ñàkk sa bakkan mën nañ ne pecca la rey comme que mag ñi waroon a wax ci pomme yi ñoo si saf sàpp gune gum neex defal patim duros def patim yàppi neen su ma yónneewu ci ndax bokkuñ bàmmeel waaye na leen leen na ñaawtiif gu ngeen fi def naa ko wax ndax sama warugal la te am na xam ne du ma ko mën a seetaan dëkk daanaka islam desatu fi mel ni sama nijaay Aliou Badou Sakho tawar fa kàlla borom baatu wurus bi oo fi conférence di fàttali nit ñi suñ borom jullit ñi daanaka duñ ci teew ñoom daal li saf seen xol mooy ngalañ ak mbal-mbal màggat moo ci ne taril ma ayatul kursi mu ŋàppi jàllam bi naan na hihi diine ji moom ni bëri boo mani hut boo bi re mani ba ca des diine joo xam ne bi ngeen doon daw si organiser ay ndajeb taatu neen nga neexoon boo màggatee doon màggatam musiba rek dee yàlla duga sawara kon boo ñu emalee kàddu yi foofu di ñaan yàlla tawfiq a xaafiya yéen ñi ne ci lëndëm yal na leen yàlla isi si leer yàlla mi ñu jàmmi àdduna àllaaxira jërë ngeen jëf mbokk yi ba beneen yoon incha allah.